Diallo euh, actuellement ñu ngi ci euh, parenage yi euh, en vue des élections de la présidentielle de 2024 donc euh, c' est vrai que depuis bi ñu instauré parrainage donc coow li bëri na ci au fait depuis 2019 ba léegi donc euh, donc certains avocats même demoon nañ ba cour CEDEAO ba ñu. pour ngañi parrainage boobu donc par rapport ak fiabilité beeg yooyu donc yow est-ce que mën nga ci ñëwaat d'une manière générale. waaw vous savez en réalité le parrainage dafa am la réforme consensuelle de 1991 bu le juge Feu Kéba mbay doon présider jamono jooju. entre-temps suñu borom subhaanahu wa ak li muy def mu am élection législative yu fi amoon en 2017 élection yooyu noonu mu am lu tolloog. 47 candidats soo koy natt 47 candidats kenn ku ci nekk temps bi ngay rang dugg ci biir fekk fa 47 représentants dans une salle de classe ak le représentant de la Sénat ñu xam ni loolu mënul jëmale réew kanam et sur les 47 candidats amul fukki candidats yu fa am lu plus de 10 000 voix. je pèse bien mes mots, vous avez la possibilité d'aller faire les vérifications. Il eu moins de dix candidats yu am dix mille voix lu mel noon nag su amee ci réew dafay baax nit ñi toog waxtaan xool yan réforme ak yan mesure la ñuy jël looloo tax bu ñuy dem élection présidentielle en 2019 état du Sénégal fekk après 2016 le président Macky Sall woote woon dialogue bu bu paree ci référendum bi en ce moment ñu ñëw jàll ci mbirum parrainage bi il y avait 44 candidats cinq ont été retenus lors des élections présidentielles en 2019 par la suite ñu dem élection municipale ak récemment ñu pare élection législative mu amoon aussi 47 candidats ñu retenir ci huit du moyen de filtre et je voudrais d'ailleurs attirer l'attention de tous les Sénégalais ñu xam ni le parenage lépp luñ ci wax le président Macky Sall ñu ngi koy tooñ ndaxte du moom mooy parrainé du moom mooy jël carte d'identité dem leen yabal naa leen fi du moom mooy segg candidat du moom mooy tànn kandida li ñuy woowee doublon interne mooy yow nga jël Amadou Ndiaye bind turam Amadou njaay numéro CNI 00 84 01 nga def Dakar nga ñëwaat def Amadou Ndiaye. 00 quatre Kolda mais loolu mooy doublon interne parce que c'est la même personne. et on peut pas duper aussi ñoo xamante ni ils ont le fichier électoral. te fichier électoral bi lu ci nekk ëpp 6 millions 400 mille sénégalais. c'est des professionnels ñoo fa nekk au niveau de la direction générale des élections bu loolu weesoo après 2019 comme li ma wax noonu ci élection législative yi ci diggante bi dialogue amaat bu dialogue amaatee ñu bëri bañ a déggoo ci choix bu président de la république ak ki mu fa yabaloon ku ñu njëkkoon tànn pour kooku jiite la commission politique acteurs yëpp bu ñu demee waxtaan ba ci biir ils ont accepté que le contrôleur général l'actuel directeur général des élections di la euh, di Thiendella mu jiite commission politique bi et en ce moment il y avait l'opposition le pouvoir euh, les non-alignés ñoom ñëpp ñu ànd liggéey liggéey gu rafet ba jour bu ñuy déposé le rapport alors pourquoi ñuy xaar ba léegi pour di attaquer à longueur de journée le contrôleur général c'est vrai que am na droit de réserve mais c'est un grand commis de l'État mais bul fàtte ne aussi parrainage bi depuis bi ñu ko instauré surtout en 2019 euh, ba léegi gars yi ñu ngi koy ngañu aussi surtout actuellement aussi élection yi ñu jublu donc euh, une partie de l' opposition c' est vrai que def nañ dialogue mais ñu bëri aussi euh, ils n'ont pas répondu à ce dialogue le parti Pastef donc actuellement l'ex parti si vous xam nga xam nga ku demul wuy ji waxtaan mm-hmm. parce que àdduna lépp loo gis même guerre yi nga doon gis ci àdduna bi yëpp tôt ou tard ci waxtaan la ñu toog signé benn protocole ay réew waxtaanee ko ngir jàmm am te loolu am na fépp à travers le monde waa su ne dañu woote waxtaan yow njiitu réew mi woote nga waxtaan loolu mooy sa wareef ci waxtaan bi woo nga politiciens yi woo nga kër diine yi woo nga yeneen acteurs yi woo nga société civile ñëpp ñëw wuy si la ah am ñu beddeeku ne ñoom bëgguñ ñëw wuy si la ci dialogue bi te yow yaay incarné le garant de la constitution en ce moment mënatuñ leen forcer pour que ces gens-là ñoom aussi ñu mën leen considérer ci réew mi parce que nag gis nga waxtaan dafa di lu am solo te conclusion wu dialogue bi moo jur ñu gën a alléger le parrainage ba tey diggante voir 0,6 voire 0,8 pour cent de l'électorat képp ku ko am tu passes mooy diggante 44 mille ba jëm 58 mille ci mbirum parrainage bi waaye yow soo ko mënul matle soo mënul aussi jàll ci sept régions yoo xamante ne bu ci nekk am nga ci deux mille soo ko calculer muy deux fois sept quatorze. nga boole ko ak yeneen trente mille yoo xamante ne même soo ko matlewul deux mille deux mille ci ay régions mais nga am ay carte yo yoo ne ay nit ñoo la parrainé muy lu fiable je pense. Hmm? le parrainage des des ça c'est le parrainage des citoyens le parrainage citoyen. Mhm. maintenant pour le parrainage des élus su dee am ngeen ay députés yu toll ci fukk ak ñett su dee matle nañ mhm. ñoom ñooy dem parrainé la dimbale la nga jàll. waaye soo amul loolu doo jàll parrainage. voilà donc concernant le parrainage des bi nga wax léegi nii donc foofu laa bëggoon ñu xaw a taxaw tuuti donc gis nañu coalition Benno Bokk Yaakaar en quelque sorte matale na ko. su ñu xoolee donc euh, euh, gis nañ leen aussi ci terrain bi à la recherche des des parrains donc euh, c' est vrai que aussi dernièrement am nay opposants yu génn dont Abdourahmane Diouf mun naa ko citer Pape Pape Pape Djibril Fall aussi donc di kaas loolu le fait que a ngi ci terrain bi di récupérer ay parrains alors que soxlawu leen ko ñoom ñoo ko gën a soxla est ce ngeen war ngeen ko mën a bàyyi ak ñoom. waaw su dee genre xëccoo la en fait pour dem leen bloquer. waaw xam na su dee ŋàññ su jotee ñu ŋàññu ñu. Mhm. nous nous avons le pouvoir. et nous souhaitons rester au pouvoir. Raison pour laquelle nous allons suivre les instructions fermes du chef de l'État. mooy lan et chef d'ailleurs de la coalition Benno Bokk Yaakaar lim ñu sant mooy wuti ji leen parrainage même suñu matlee muy le parrainage des élus daanaka mooy député yi ñu matal aussi parrainage wu maire yi mais suñu yebalee ci le parenage citoyen ñun ñi nekk une sous-coalition mais nous allons suivre aussi ñun ces instructions à la lettre en tout cas pour ma part man pour ma part samay militant kenn ku ci nekk fi nga yeewoo ci Sénégal nee naa la demal ci délégué régional bu président Macky Sall tànn ngeen dem jox ko ñun suñuy parrainage loolu mooy contribution coalition naataange askan bi. à quelle fin oui nous sommes en politique c'est de l'animation politique ça nous permet d'être en contact permanent avec la base ça nu permet de rencontrer nos militants ça nous permet de discuter avec les frustrés. Une campagne de quelle une campagne non c'est une animation politique. Mm-hmm. te permet d'être en contact permanent avec ta base parce que dara umpalewu la ni que su parrainage bi jàllee dañuy dugg ci pré-campagne mm-hmm. et pré-campagne boobu noonu ñu ci bëri dootoo am jotu gis leen pour mën a waxtaan ak ñoom pour ngeen gën a mën a saafonte raison pour la laquelle ci parrainage bi dëkk yëpp ñi ngi dem ñi ngi waxtaan ak nit ñi ñi ngi saafonteeg doomu aadama yi ñu ñun ci gëjoon gis ñi ngi waxtaan ak ñoom ngir ñoom ñëpp ñu jël seeni pièces d'identité parrainer le numéro 117 di nekk le choix du président Macky Sall. Okay. donc euh, récemment aussi on a vu euh, le mandataire euh, de Sonko donc euh, ba léegi euh, il peine à recevoir ses fiches de parrainage donc malgré la décision du tribunal de grande instance de Ziguinchor donc loolu aussi est-ce que mënuñ boobu ba léegi du ngeen jox raison opposition bi que vous êtes en train de bloquer des adversaires politiques. alors là pas du tout vous savez au Sénégal nous avons une justice autonome et transparente ça aussi il faut le rappeler d'ailleurs je suis très fier de le dire parce que tey di nga gis ay réew yu bëri dañuy yebal seeni attekat ngir ñu ñëw fii au Sénégal def fi stage ngir ñu suñu magistrat yu ñu am ñu former leen waaw lu mel noonu nag tey soo toogee nga ne da ngay dénigrer la justice yaa ndax sa bopp wax naa la ko sànq le fichier électoral li fa nekk mat na peut-être trop euh, mat na six million trois cent ba jëm six million quatre cent waaw su dee yow bokkuloo ci fichier électoral bi naka lañ lay joxe parenage naka lañ lay joxe ay fiche loolu comme c'est un dossier pendant et que tey l'État du Sénégal am na aussi ñoom benn taxawaay buñ ci am ce agent judiciaire de l'État nekk di ci liggéey ak yeneen kilifa yi ci nekk yëpp nañu taxaw déglu leen ba xool fu ñu fu ñuy jëmale lépp waaye ñëpp xam nañ ni que tey au Sénégal justice bu ñu am ñëpp leen war a féliciter ndaxte seen taxawaay seen liggéey moo tax ñun ñii tey alhamdulilahi rabbi alamin fépp foo mënti génn ci Sénégal ba dem bitim réew dinañ laan naan kat bravo parce que ñi ngi féliciter les hauts magistrats émérites yu ñu am au Sénégal.